borom nangu nañ ko bu baax waaye teqalikoo moo mett te aduna képp koy àndal di dund bis dana ñëw ngeen teqalikoo loolu ku ne war na ko xam muy bàyyi ak doom muy soxna ak borom këram muy xarit ak xaritam dee mi nga xamante du fi bàyyi kenn kenn ku ne dana la jël te kenn ci nun xamul kañ nga fiy jóge kii fi jóge nag di sëriñ saari rafet nañ ci moom rafet dayab rafet njort laa wax rek ndax nit day jóge na fi jógeen wu rafet ba tàyyi te ëggut ci aw jógeenam bii mu fi jóge jógeen wu rafet ndax man nit wooye na ma fu ne ci continent yépp ci njaboot te kenn ku ci nekk bi mu gëjee diggante yow mëtut semaine ci ci ci am na koo xamante sax defe naa ne biñ ko ko tàggee muy jëwriñ ji nekk France daf ni ma message bi liir naa ko ay yoon ndax mënuma gëm ni sëñ Saliou ndax ca dimb sa la waxtaan ak moom téléphone waxtaan wu yàgg ba bindante ak moom ay message ba may niiral message yu mu doon bindante ak moom nga xam ne mënutoon a gëm seen sëñ Saliou Thiam wax kon diggante dund ak dee dafa jege jege koo xam ne dem na bayam ni mu fi jógee it koo xam ni dangaa dem ab dayira dem ca dayira ba jàng fa saal xoraan jàng fa say nooru daaray ni tudd fa yàlla soññanteeg jaamu yàlla ya fa nekk dellu si fi nga nekk tëdd jot nga tëdd julli fajar jot nga julli fajar ña nga toogaloon doon julli fajar ñëpp kenn ku ci nekk jóge dafa mu toogoon doon julli dem tëdd fa mu war a tëdd ñu bàyyi la fa nga toog nga yor sa kurus di tudd yàlla ak a jàng alxuraan ba ki mu war tëddal amu ca lenn lu may fa mu ko bàyyi woon mu toog bi mu ñëwee fekk fi mu tëdd moom dafa yeew rek sëñ Saliou mu ne neexu tamit kon woowu jógeen jógeen woon rafet monsieur su ko yàlla na yàlla taas na nun kat noo war a ab xalaat waaye du ma man de saa bopp xalaat ndax ab jullit moom bu fi jógee noonu xel war na caa dal war na caa rafet waaye ñun ñii di dunde ni ku ci xam nooy génne adduna ku ci xam nan ngay génne adduna ci noonu damay wax ni dee sori na waaye dund gu sotteegul rek lu ne dafay mën a dal ab lu ne mën na lu fee dal waaye ki nga xamante ni wóor na dund na dund bu teey dund na dund bu sell ba génn àdduna yàlla nanu yàlla taas ci barkeem rek lañ wax ndax fii mu nekkoon ci université bu Dakar lim fi jàngal ci ay nit ci xam-xam téere sëriñ bi lim leen ci tëralal kenn xamul noonu toll ndax bokk na ci samay waxtaan gis nga doomi soxna kuñ ko def nga doon jàng rek la ak jëfe te yàlla rek tax sëñ Saliou ay way juróom a ngi nii doon xool dañuy wax ni askanu géwal ci lañu bokk sëñ Saliou foo ko séen da nga naan kii mbàkkeel sant ñu xam sëñ Saliou Thiam ku ko séen dañ naan buñ ne rek kee di ñëw da nga naan mbàkkeel sant yaru lool teey lool du lox day sëgg rek fu fu la gis day sëgg diiru mu ne ci sama loxo nu ànd di liggéeyal yàlla ci toolu bi lislaam bi ci Serigne Touba fu mu bëre université mi ngi raw rawdatu saalihin wala mi ngi mën naa doon hudaa lu mu fay def méditation xalaat rek ak tudd yàlla jàng alxuraan jàng xasida te ku ne xam na ni àll bi néexut koo xamante ni jàng nga ba sori ci njàng am diplôme yi gën a kawe di ko fa bàyyi di dem ci ay tool loolu nit ku baax rek moo koy def sëñ Saliou ku laq sunu ngërëm la liñ doon ñaan nag mooy yàlla defal nu mujj gu rafet te waxtu wu ñu di ko ñaan loolu moom suñu borom defal na ko njaboot gi nag yàlla dafa dogal ñu ci bari la leen booleeg man du doon lu ñuy waxtaane ndax jamono ji moom ku ne xam na yàlla nag dimbali nu defal nañu sutura ba moom dong mu la ñuy bàyyi xel moom yàlla waxtaan yii ñuy waxtaan kat maa ngi dellu seedal yàlla bëgg aw tàgg de yalla seede na ni soxlawuñ ko ci yàlla seede na ni it ragaluñu ku nu ŋàññ de ndax kenn mënunoo wax benn baat bu nu waxutoon yonente bi salallahu alayhi wa sallam kenn mënunoo wax benn baat bu nu waxutoon sëriñ tuba xadimu rasul kenn mënunoo wax benn baat bu nu waxutoon ne njëkkoon kon li ñuy wax noonu lu nuy dund la mu ñor na xomm ñu fas ci yéene dund fas ci yéene de bëgguñu ci wéttal ragaluñ ci wéttal yang dong mënu ci bàyyi ndax li ma di wax waxtu fi man sama kaddu kum jeexi la tut ci yow ci sa digganteeg sa borom ba ma te wuti beneenub sëriñ tey jii laa ko gën wax barki démb dafa am journaliste bu ma fekk ma naaru ca tool ya, ne damaa bëgg séq ak yow waxtaan ma bismillah mu ma sëriñ bi damaa gis ne yow kat sa wax dafa lool te nit ñi day wax ju ji gënalu leen ak yu mel noonu ci mi ma ne ko loolu moom yàlla ma ko bind kenn mënu ma ci jële bu ñeba topp ci man bu ñeba woon ma gannaaw Cheikh Yaxya si mii nga xamante ni day moo njëkk ànd ak man ba muy dugg ci sama néeg ca kër sëñ Moustapha Sylla baat ba ma ko waxoon ci laa ne ma tey te kenn mënta wax boo jóg ci boo duggee ci sama néeg bi ma digal la ndigal lu ko teg digalal yàlla ak yonent bi Serigne Touba bul fi duggati ana Yaxya loolu laa ko waxoon booba nun ñaar dong la tey jii fii ma toog di wax ak yow bari na taalib yoo xam ne buñ ma nuyoo xam seenu tur du xam seenu sant te kenn ku ci nekk nag li na ci moom moo ne ci yow man xooluma kuy dëpp xooluma kuy dox xooluma leneen lii sama yitt daal ci lu jege ak ci lu sori bu ma doxutit ndax sama ñàkk solo ak sama doyadi ak sama xeebu naay wax lu baax ba ki bëgg lu baax mën a dox dem sama ma bañ a gàllankoor kenn kon loolu ci la nekk li nu fi dajale nag mooy fàttali njàngaleem Serigne Touba mooy thème bi ñu joxoon sëñ Abdou Cissé daanaka wax na lépp muy njàngale moo xam ne lépp lislaam rek la ñu bàyyi xel ni yàlla moo digle moo tere yonent bi dafa jot rek sëriñ Touba it dafa dikk jot rek jamono bi toll foo xam ne ñiy wax nit ñi lu jëm ci seen bakkan jëm ci seen bànneex dafa gën a bari fuuf te ñooñee day bari nag ñoo xamante ni ci bëgg a jóg jëm ci dëgg jëm ci njub luñ mën ci gàllankoor la danañu ko def waaye nag dëgg ak njub képp ku bëgg a dox ci kanamam yàlla dox ci sa dox sa digg ak loolee ba doo ca mën a àgg doo ca amu yoon ki ne ci dëgg ak njub it yoon woo jaar ba jàpp ni mën nga koo kalkal ba mbiram jëm suuf day mel ni loolee da ko koy yëkkati te doo ko xam kon bu ñu bëggee déggante dëgg te déggante njub képp koo xamante ne yaa ngi tuddoo ni Serigne mooy sa kilifa Serigne Touba mooy sa Serigne Serigne Touba mooy sa yaakaar na nga xam ne Serigne Touba li mu bokk digal ñun ñëpp mooy ne yàlla digal yonente bi yonente bi jot la Serigne bi dafa wax ne képp koo xamante ni bëgg ngaa dëkk ci kër koo xamante ni doo ca toxoo mukk ndare bu kër googee boo ca toxoo aljana ngay dëkk na dëkk. ci def li yàlla digle te nga xam ne loolee day mooy sama dëkkuwaay man Serigne Touba képp ku dëkkee def li yàlla digle te teel fi tere na nga xam ne yaa ngi dëkk ak man te doo teqalikoo man mukk li fekk teqalikoo woo loolu yàlla digle dem ci li yàlla tere. fekk tuxuwoo ci ndigal yi sunu borom yi dem ci li yàlla tere te dellu siwaatoo ci li yàlla digle. na nga xam ne teqali koo na maag yow ba faww te jotiwu maag yow dara sëriñ bi nee na képp koo xamante ni bëgg nga mucc ci sa bopp ak ci sa kër ak ci sa njaboot na ngay saxal yéenew yiw ci bépp mbindeef na ngay saxal wax yiw ci bépp mbindeef na ngay taxaw jëfu yiw ci bépp mbindeef da ngay dundale sa alal loolu dana la tax a mucc adduna ak àllaaxira bokk na ci li nga xamante ni sëriñ bi daana ko dénkaane ku bëgg àgg ci yàlla te bëgg xarit boo xamante ni dana la ànd ak yow ci yoon wi gunge la ci yoon wi te dana la teral na nga jàpp li yàlla digle nga di ko def muy sab xarit moo lay gunge ba nga tàbbi aljana waaye li yàlla tere na nga ko jàppe muy sab noonu ndax mooy tax nga mucc ci sawara wi nga xamante ni ëllëg nit ak doj ñoom la ko suñu borom di xam ne yàlla na mu ci yàlla musal sëriñ bi day nee na képp koo xamante ni sóobu nga ci yoon muy yoon wu jëm ci yàlla te dëppoo taxawoo gestuwoo faw da àgg ci yàlla buñ jàpp ni mukk nag cër yi yàlla doon joxe ñu njëkkoon dañ koo jël bàyyi nu fi nun ñii déedéet gis nga nun ñii toog ñenu njëkkoon ay doomu aadama la woon ni nun kuñ fiy dégg lu mu rëy rëy rëy cër bu mu am ci yàlla xëyoon na xamutoon dara xëyoon na xamutoon dara waaye mu takku ba dëgër fas yéene ñamu yëg ni ñii jaaroon nañ ci yoon yi ba àgg ci yàlla am ay daraja ci yàlla mu futti ku jaar toowa yoon ku ko ba sa def nag lu ne dégg nga ko lu ne daj nga ko waaye boo dëpp taxawu gëstuwoo danañ dem ba xam ne kii moo nekk ci dëgg njëlbeen gën a faw mu métti danañ ci ñëw ci kanam waaye ku suubu ci yoon wi te dëppoo taxawoo gëstu da nga àgg ci yàlla yàlla nag du la jox lennam te joxoo ko sa lépp te doo ne ko rek jox naa la sama lépp ci sa wax mu daan lay mosal dara déedéet day xool ba xam li nga wax dëgg la ci yow wala déet soo nee ab jullit laa yàlla mën na laa teg natt yu gis nga ne ah man de dama fas fase adduna wan ko gannaaw jublu yàlla te fas yéene am ngërëmam sunu borom di la teg ay natt rek nit ñi di la ngañ ñi di la xas ñi di la doyadal ñi ñi naan daa waane ñi naan dafa sob lu ne da nga ko dégg waaye nag nga sax ci dëgg sax ci njub da nga dem ba ku defutoon noonu nga def day da ko kawe kawe woo xamante dana jege ni ki ne ci suuf di seen jant sëriñ bi day nee na jëf li la yàlla sant te teer lim tere coonaa ngi ci jëf li yàlla sopp ci yow coonaa ngi ci jëf lu dagan te am njariñ it coonaa ngi ci waaye boo bii coono da nee na lépp day mujj nekk ab nooflaay nekk aw yiw te yiw woowe mooy dugg aljana nee na day jëf lu xaraam bànneex a ngi ci jëf luñ sib bànneex a ngi ci jëf lu ñu daganal loo xamante ni day yàq ba tey bànneex a ngi ci waaye bànneex boobu yépp day day mujj nekk mbugal ak yeddeel ak musiba ak ay te ay woowee mooy sawara walxiyaasu billah yoonu baax du yomb mukk ndax sëriñ bi daf ñu ceyee nabbaxtukum maana ala kaddin badaa li xabla an araaridan abada yéen ñëpp maa ngi leen yee ci njëkk may am ngërëmal yàlla lu sax dakk ci coono bi ma def kon képp koo xamante ni bëgg ngaa li yàlla digle bul bëgg ku tàgg ko ragalam ngàññi la nit ñi day képp koo xamante ne yaa ngi leen di déglu foo sóoboo lu baax da nga gis ku topp bakkanam ci sawet koo xamante naan la lii dalay tàppale rek lii amul solo nekkal ci nangam nekkal ci nangam nekkal ci nangam dee jët bala yàlla bind fekkiwu ko de boo tëddee di xar-xarle du ca man dara te du mën a dox sa diggante ak metti tuddee buñ takkee sa tànk di la yor ci bàmmeel du la wét li mukk te du la ca jiitu ëllëg booy dajeeg yàlla du ko fekke sax kon nag ku jóg ku jóg dëgmal yàlla ku bëgg a dox sa diggante ak yàlla dogal seen diggante ndax kookee kiiraay la te kiiraay lay doon loo xamante ni kat ëllëg dana la teg na boo xamante ni du mën a dox sa diggante ak moom yonent bi wax na ni aljana ay ay ay naqara ko peeg sawar ay bànneexa ko peeg waaw ki bëgg dem aljana ba noppi foo toll lu bëgg amul noflaay loolu yéen wut maanaam bëgg na maa dem aljana neel ci yàlla digle lu métti métti métti bàyyi li sa bakkan bëgg ak lu ko sa bakkan bëgg-bëgg defal li yàlla digle ak lu ko sa bakkan bañ bañ bañ nekkal ca loolu ndax kat liñ fi am lépp lu ñuy ñàkk la te xamoo kañ kenn xamul nag kañ lañ koy ñàkk ndax dund gi li ci gën a yéeme ku xamoon kañ ngay faatu sax nga ne naa ko waajal waaye kenn xamul kañ nga fiy jóge te li ngay mébét ak a yóotu ak a yaakaar ak a xalaat naan war naa caa mën a àgg loolu lépp dee mën naa dox sa diggante ak loolee bala nga caa àgg kon nit ki li mu war a yittewoo mooy fexe ba dee du ko bett nan ngay fexe ba dee du ko bett mooy fexe foo toll di fàggul sa bopp melawoo xam ni bu dee doon dikk doo ca soppi dara wadum ala alaihi alayhim tasbutu la jaaka al-maut kama qad sabat sëriñ tubaa dafa wax ne saxal ci melo wax ne bu dee doon dikk doo ram doonub tëri bi nekk ci sa bakkan nekk ci sa bànneex ne ci loo xam ne sa moromum jaam sax su doon jam nga teg ko fa ca suuf danaan sëñ tubaa la def nax sa la ndax bari la ñoo kat def seen mu gis ca dara mu xam ca dara te day gannaaw yàlla nag bu mën nelaw te kenn ku nekk ci noonu mi ngi jàlloo ak noonu nañuy bàyyi xel ni ñuy jëflante ak moom tey am kersa ci suñu diggante ak moom gannaaw àjjana nag ay naqar ko peeg naqar yooyee teet ko ba jàll doy la soxla sëkk wadif leneen waaye sawara yi nag ay bànneex ko peeg loo bëgg a xool-xool loo bëgg a déglu déglu foo bëgg a dem dem gaaraam place bu la neex dem say li ngay li ngay fàggu yépp doo xàmmee lu dagan ak lu dëgganut loo jot rek ne naa fexe ba bokk rek naa fexe am oto bu rafet naa fexe am kër bu rafet naa fexe am dara ci sama compte banque yooyu yëpp amut lenn loo ciy seet ba xam lii lu dagan la wala dëgganut loo ciy jëfandikoo doo xool ndax dagan la wala dëgganut fu ne nga di fa dem lépp lu sa bakkan laaj nga dox ko ko loolee day néewaane nit ki def ba di am ngërëmal yàlla sunu borom subhanahu wa taala te yonent bi kat daf doon wax ni gënal leen liy des ci di jeex adduna moom ku ne xam na ni ni ma koy waxee waxtu wu ne fi ne suñu ndogul démb lii ku ci ndog woon ndog la lu mu neex neex neex neex neex fii nga toog xiif nga li ñu weesu lépp noonu la fii nu toog nun ñëpp luñ fi bànneexu ci li weesu ci suñu fii nu toog ku ci lenn lu mu bànneexu ci ci li weesu li ci kanam luñ ciy kër ci kër si kon noonu dong la mel adduna noonu dong la mel melut neneen loo xamante ni loo ci weesu fàtte ko li ci kanam war ngaa fexe ba loo cay def mu nekk lu yàlla gërëm sëriñ bi daana wax ni tàmbali dëgg lu metti la lu wex la waaye mujj ga lu neex la ndax bis boo jógee ni dañ gis nga sëriñ bi bi mu jógee ne dan na yonent bi xam ni ñi ko jiitu woon la leen mayoon yàlla may leen ngërëmal yàlla may leen ñu am ak wusul ci yàlla mooy nekk ci dëgg nekk ci njub na ci mustaqima ñëpp dañ ñoon dafa dese xaaloo safihun bi sarfi anhum basari ndax nit ñi kat lañ jàpp ni mooy dara heure boobu ko bàyyee ne ci dëgg gu ñu jàpp ni nit ko ci dara danga gis ku la xeeb danga gis ku la doyadal da nga gis koo xamante nii sax xëy na ay way juróom yoon wooyee wii mu aw awu ca wala koo xamante ni kay kilifaam yoon wii mu jaar jaaru ca su ko defee loolu lépp daf ko koy doy dal wala nga am xarit yoo xamante ni dañoo ne ci seen bakkan ne ci seen bànneex te lii nga def di leen di seene yooyu yëpp dañuy fexe dox sa diggante ak loola kon tàmbali dëgg de lu metti la ndax lu ne da ko dégg lu ne da nga ko gis da nga gis ku la noonu lool da nga gis ku la xatal lool da nga gis ku la lool da nga gis di la wax wax ju ñaawa ñaawa ñaaw joo xamante ni dana dem dara waaye nga muñ te yàlla rek tax te bañ a xool nit ñi te xool sa bopp lépp lu nit man di wax ci yow xoolal yow sa xol sa sa borom bu la ni ci li santal yàlla te sax ca bu la nit di mere ak harap xarab ak a ŋàññi dara la du wàññi waaye bu yëri sa bopp mu wóor na nekk ci li bu ak ak gërëm dara la lu dul jariñ buñ la suulee ci biir bàmmeel yow dong nga def mu ni tàmbali neen it lu neex na waaye mujj ga dana we xat ndax am na ñoom toj boo nekkee ci neen dañ lay jay rek noonu rek la de waaye kenn ci neen day lay dajeeg moom bis bu dajeeg moom mu wóor na la ni neen yi nga dul dund yépp bu dee bànneex la bu dee bakkan la bu dee seytaane la fi nga doon dem te dul yàlla gërëm li nga doon dox te dul yàlla gërëm fi nga doon dugg te dul yàlla gërëm bis boo àggee ci bànneex yooyu yépp di la tàgg mu wóor la ne tey lañ ta tey tey ngay tàggoo ñoom te duutoo dajeeg ñoom day da nga xam ne loo nekkoon ci lu ak njub ne ci njuba ko gën sëriñ bi wax na ne yu baax yépp ak yu yépp ñooy ñami ak ñooy ñami aljana waaye ñooy safara yàlla ci yàlla musal mu ni tegtal ci loolu guddi ak bëccëg ndaw yi borom lañ ci bépp mu kàllaf muy góor muy jigéen moo am as gor moo am as ab jaam nga fu bëccëg dikkee bëccëg nun ñépp lay waxal su jant bi fenkee jant danaan la xoolal ci sa bët yi loo xam ni ëllëg bu la ko suñ borom wanee du la naqari bu ma ko yéetee sunu borom du la naqari sa nopp yii déglu ci loo xamante ni ëllëg su ma ko yéetee sunu borom bu ñu la ko wanee du la naqari Setan ki, yii fexe fee dem foo xamante ni fu yàlla foy gërëm la fooy dolli koo ci yàlla la foy jariñoo ci yàlla la lu lay jariñ ci sa dundin adduna la lu lay jariñ ëllëg yoomal xiyaam sàmmanteel ci bis bi bay ba jant bi di so jant bi da lay wax ni boo leem loo xamante ni bëggoo bo boo demee fa sa borom fekk ko fa na nga koo tindi ko bu jant day di dem guddi di ci ci kaw asamaan su mu yegg ñu ne ko waaw ana diw doomi diw ana ay jëfam naka nga ko fekke naka nga ko bàyyee naka nga gisee mboolem ay jëfam ci bëccëg gi léegi-léeg mu ne ah bàyyi naa ko muy nelaw de moom day bàyyiwul xel bis bu ñuy tëdd ci bàmmeel xam ne dana fa tëdd tëdd bu yàgg woo xamante du fa jóg mukk te suñ borom wóolu boftu bi mu ni bàyyi naa ko mu ne cim po de déglum po seetaanum po ne cim po wala mu ne bàyyi naa ko muy waxtaane waxtaane wax ne dara amulu ko ca njariñ te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ëllëg yowmal xiyaam jullit ñi ñi ci ëpp ñooy dugg sawar boo leen laajee lu leen ci yóbbu seenu làmmiñ lay wax seenu làmmiñ la ñuy joxal te léegi nag nit ñi kenn ko nekk ak mala yam booyal saw làmmiñ ci luñ xamul rek la ñu dëkk diw li muy def diw li mu nekk xam nga diwa maa ko xam kay diw koy nangam lu ne nga attan koo wax tamit te dara du ca dëkk fu sa mbokkum julit war a amay njariñ nga kan dem di kar njariñ la di yàq rek di jaxase rek dem bari lool léegi te loolu lu mat a baxel la ndax kenn ku ne day loo wax tey jii ëllëg danga ko waxaat te kat kii nga defe ni man ngaa yàq njariñam bay wax loolu ci fi béréb loo xamante defe nga ne war na faa mën a ci lu yàlla dogal ci moom amaana kat bu mu ci jox bu gën su ko dëkk ci man di am nga bàkkaar yëkkati nga su guddi jotee bëccëg léeg-léeg ma àgg ci naa fekk naa ko muy def loo xamante ni du ma ko nett li mukk fii ne bari waa na koy defub safaan safaan ba safaan ba muy def nit ñee koy yalu xamoo jëw moo gën bon njaalu fop jëw bàkkaar yi gën mag jëw ci la ndax li mu mën dafa bari da ngay luy ab li ci ëpp ci làmmiñ lay bàyyi te boo gisee kat ñu naan jullit mbooloo jullit ajjuma mbooloo yooyu ñuy tudd yépp ba ca ñuy wax ay ak bëgg xol yi nekk rek tax waaye bu caagee rek julli jot rek nga rek dem ca jumaa rek ku ne ñëw julli te fekk yow sa xol yaa ci ëmbal sa bokkum jullit mii nga xam ne yéen a bokk benn sàppe sax ñu ñu la ko julli jariñ dara julli juma ja du la jariñ dara ndax bañuy wax ne nit ki su julli ji wut aljuma ñetti julli ñetti julli yu tegaloo la ca yonente bi wax loolu lépp la ko waral mooy aljuma ji day nekk bis boo xam dañ la ciy waar delloo la ci yàlla fàttali la ci yàlla ba boo fa jógee yeesaat peq ci sa diggante ak sa borom yeesaat peq ci ndigali sunu borom yi loolu mooy tax ñu farataal aljuma ci jullit soo tegalee ñetti yoon nag te julli ji woo ko di jaxasoog waa aduna di jaxasoog nit ci aduna di jaxasoog aduna bi nga nekk saytaane taxaw bakkan taxaw bànneex taxaw amul lenn lu lay delloosi amul lenn li lay fàttali sa xol mën naa woo ci diggante bi moo ñu bëgg ngay dem boo gisee ñuy wax julli mbooloo it booloo xol yi loolu mooy li ko su bëccëg jotee it su guddi jotee it moom tamit noonu day wax ci lisaanu xaal ni la lépp loo xamante ni daal bëgg nga ëllëg suñu la ko wonee nga bëgg jëf ko waaye lépp loo xamante ni ëllëg suñu la ko wanee du la neex teg ko noonu lay def moom itamit ba fajal xar mu wuti suñu borom fépp fu mu romb ci asamaani juróom ñaar ñu di ko laaj ana jiw ana ay jëfam ana ay lu mu jëf ci yiw lu mu jëf ci safaan loolu lépp ba ni muy àggee ci diw dama ngay def loo xamante ni sama làmmiñ sax ñu mu ko tudd waaye loolu lépp buñ ko suñu borom suñu borom lan la cay teg yóbbul teg ca bàmmeel ba rek heure bu ñëwee fekk ko fa moom leet du ci weesu loolu moom suñu borom subhanahu wa taala saa su kookee ab digam jeexee ci kaw suuf bañ takk ay tànkam ak loxoom di ko yor ci bàmmeel borom day wax ni day yéen malayka yi diw day dana leen dikkal ci waxtu sàngam ci heure hamni, mi ngi ñëw na ngeen xam jëf na ci yàlla ba yàlla gërëm ko te yàlla namoo na ko noppal su fekkente ni koo xam ne ku doon jëf du yàlla gërëm la na ngeen xam ne lii mooy ay jëfam malaayika yépp yéemu ci rafetu ak jëfam ñoom ñépp waajalal ko tëdduwaay boo xamante ni mooy gën yaatu penku ak sowu gën leer jant bi mu nekk bu jaam boobee ñu andil ko ci ay bernde loo xamante ni bëtam musu koo gis noppam musu koo dégg ñu ne ko tànnal lu la soob lépp loo bëgg danañ la ko andil ci waxtu woo ko bëggee heure bu suñ borom wala boftu bi nit ñi di dekk ci seeni bàmmeel kenn ku ci nekk kem ay jëfam ni lay dekkee da ngay gis koo xamante day dekki sol la gën a rafet gis nga suñ jataay bi ku ne ba ngay ñëw soxna yi tabaarkal la kenn ku nekk xotti na waajal ko solo góor yàlla yi ko ne kenn xotti ko waajal ko solo ah nañ waajale noonu ëllëg biti bii nun ñi dong koy gis suñ biir xol yi yàlla dëkkee nañ ci na set wicc na ci yàlla rekk nekk ni ñuy tiiwu biti bi ay waaye yàlla mi nga xam ne mooy gis suñu xol bii te amul soxla ci biti nit ñi tiwa bitik boobu ñu génn ñun la na xol yi sete noonu fees dell ak yàlla fees dell ak bëgg yàlla fees del ak wóolu yàlla fees dell ak ragal yàlla fees dell ak yaakaar yàlla waaye fees dell ak yiw ci mbooleem jullit ñuy dox ci kaw suuf ñépp ñu ëmb leen aw yiw te di ko wax ñoom ko jëf su bis penc baa su dekkee bañ a war boftu bi mu bëgg warwaay bëgg lu mu sol def mu nekk ba taaru nekk ga rafet bu ñëwee ca bis penc ba nga xamante ni sunu borom dana jant bi juróom fukki junni at ba yuri di xet jëfam ju rafet jooji jëfam ju rafet jooji tàngoor woowu mooy doon lu ko tiim xam nga lii nu tiim day mootee naaj bi ak sunu kaw jant bi buy tawit nu tooy jëf noonu ko suñu borom di defal jëmm jooji moo koy wattu ca tàngoor wu tar woowu buñ woowee nit ñi ngir ñu war a jéggi siraat jëfam jooje mooy doon warwaay boo xamante ni ci lay war ba jéggi siraat naan ca kawsar ak jàll ci biir àjjana jëfam joojee nekk kër goo xam ni du ràpp mukk du lakk mukk te bu ca duggee du dee mukk te du xiif mukk du mar mukk du am tàngoor bu koy sonal du am sedd bu koy sonal ndax fii kër bu tàngee jir ñu ne tàng na bu seddee lool ñu ne sedd na loolu amul aljana aljana loo soxla ma nga fa tabaxi aljana yépp urusab or la sarte yoo xamante ni mënees ko misaal doomu aadama dexi lem dexi sàngara dexi meew te dara du la ci sàppi nag bis boo xëyee da lay gën a neex kër googee muy kër sun kër yi lu mu taaru taaru taaru taaru taaru bis buñ nee roogi teqalikoo nag jëmmam noppi nga fanaan ci sam néeg lañuy njëkk a def kay na dem ca margo ba rek noppi nga ca googee kër moom loo jiitu lutul ci yàlla loola moom noppi nga ca te dootoo dajak moom mukk nag muy ñàkk boo xam ne duutu ko am mukk mukk mukk mukk pare nga ci kër gi duutu bi dëkkati ndax ku ne ci nun benn la fi jaar kon yàlla nu yàlla texel ci ñaari kër yi ci dara ñuy sëriñ Tuubaa su fekkente ni ku doon ñaawal ay jëfam la ah sunu borom it ne yóbbu leen ca bàmmeel ba rek teg ko fa bu ñëwee fekk ko fa waxtu mu faatoo te tuubut nag weeru tuub la nañu tuub ci ñëpp bakar lu mu rëy rëy rëy rëy rëy bu ko ya bi tuubee yàlla mën ya ko koo jéggal yàlla ku bëree bëree bëree bëri yërmaande la nañ ko ba ku beri njëggal ku beri yërmaande la waaye nag ke gi yërmaande gi nag tuub sëñ sëñ Abdou Lahad da daan wax ne bakar tuubay tax ñu far ko bàkkaar buñ tuub di su ko far kon nag bu ah sunu borom wax malayka ne leen jaam bii nga dafa sori boromam jëm ci bakkanam jëm ci bànnee xam ne dana ñëw fi ci fi yéen léegi waaye heure bu dikkee na ngeen ko tënk na ngeen ko dóor dóor yu wér su àggee ci ñi war a rocc ak ruuxam bànneex yi yépp di ko tàggu muy bànneex yu xaraam yi mu daan jëfandikoo bànneex boobee danaan ko bés ni tey day noppi nga bànneexoote bu dee ci bët loo daan xool ci sa bët la noppi nga ca mu dara looy man cee xool ci sa di ca am bànneex bu dee di ca bànneexu bànneex boobee noppi nga ca bu dee loo daan lekk di ca bànneexu bànneex boobee noppi nga ca bu dee la bu xet la bu lu man di doon bànneex boobee foofu nga tëdd sa gróor yi teqali koog sa jëm bànneex boobee ca la lay ba buñ ko ba yi mu bëgg bëgg daw bàmmeel nag ko nag boo xamante ni meew moom nampe woon ci way jur mu jigéen day génn yàlla nanu ci yàlla bokk musal bu suñ borom dajalee ñu njëkk ñëpp ak ñu mujj ñëpp ëllëg yu ma xiyaam suñ borom day dajale ñaawteef yëpp ak yiw yëpp ci benn béréb dajale gaa yu baax yëpp ak ñi safaanoo baax ñëpp ci benn béréb indi àjjana indi sawara suñ borom daal di wax aljana ne ko demal ca yu baax yee ñooy saw ñam moom mu daal di dem jël mbooleem yu baax yépp moom aljana su aljana dikkee suñ borom ne ko wool gaa yu baax yi ñoom ñépp ndax lii mooy seenu yow yow sa wàllu bopp yaay seenu ñam ñoom mu daal di wax sawara ne ko demal ca ñaaw téef yee jël ko mu jël ñaaw téef yépp mu ne ko woon ña ko doon jëf ndax mooy seenu ñam kon ñun ñëpp nanu maasa bàyyi xel ci suñuy jëf bàyyi xel ci suñuy pas-pas bàyyi xel ci suñuy kàddu sëriñ bi daana wax ni nit ñi ñetti xaaj lañ ku rafet njort ku ñaaw njort kuy topp njort kii rafet njort mooy kuy njort lu rafet tey jëf lu rafet te du jëf dara lu ñaaw kooku bu mu yaakaar lenn lu ñaaw ndax lu rafet rek la am ki ñaaw njort mooy ki nga xamante ni soo ko digalee lu baax mu defee ni da ko bëgg a sonal dong ah kii damaa bëgg a sonal rek gone bu ndaw laa demaguma fenn mu bëgg di ma julliloo rek ak naafiloo rek ak jàngaloo alxuraan rek ak sikkarloo rek loolu teguwul fenn xamoo fu sa bakkan bi rote te jëf ji jëpp sa jëf rek la ki la koy digal moomu ci dara ki topp bakkanam ak bànnee xam ni man nag looy bëgg a def ci lu baax mu bëgg a nëbb ayibam tax mu di la ko woyofalal lànkal boo liggéey booy dajak sa borom du ko fekke kooku day jot ñu loo ko digal rek mu ni da nga koo bëgg a sonal rek waaye te da nga koo bëgg a sonal kii topp jot nag mooy ki nga xamante ni soo ko digalee ak topp yàlla mu ne ah yàlla dama dama dugal àjjana ci lu dul ma di ko topp nag ak jaamu nag sëriñ Tuubaa ne loolu day dëgg gu wér la yàlla mën na loolu mën na leneen sax lu dul loolu waaye nag daf ko nëmmut mën na ko am na kàttanam waaye yàlla da ko nëmmut xam nga am kàttan mën a def te li nga am kàttan def ko nëmmoo koo def bokkut te yàlla moom lu mu nëmmut du am ndax kat yàlla mënoon naa dugal aboo jahlin safara aljana waaye namm ko ba mu namee dugal ababakar aljana da koo namm moo tax ababakar dem aljana aboo jahlin dem safara kooku boo ko teree ak mooy yàlla mu ne ah kii de daf maa bëgg a sonal rek waaye yàlla mooy gi du ko jariñ dara du ko lor topp gi du ko jariñ mooy gi du ko lor te yàlla mën naa dugal kuy dem kuy ma yalla yalla mën ko dugal aljana sëriñ bi ne waaw waaye yàlla dafa tere am mooy te diglewu ko kon ndigali sëriñ boobu di am njàngaleem lu ñu war a bokk dundaat na ñun ñëpp te bokk ko ci war cee taxaw lim nu dénk mooy xam ak ko te setantal te ak bu matub sëriñ boo xam ni am na xam-xam ma ngi koy jëfe te yàlla tax te boole na ay teggin koo xam ni soo ko gisee doxinam meloom jëfam lépp lam lay tegtal mooy yàlla sunu borom subhanahu wa taala sëriñ bi nee na xam-xam lépp lu nit ki di taarawoo xam-xam mooy li ko gën ndax mooy li lay taral foo mën di dikk xam-xamu yiw xam-xam ak jëfu yiw mu ni jëfu yiw mooy ngën di yóbbal waaye xam-xam nag ci lul ngay jëf lu baax ak waru dong la waaye teggin yi ñu gërëm mooy ngën gi taaraw waaye ñaar ñoo ñi mu wax muy xam-xam ak jëfe ko su andut a teggin ñoo ko réere yam dong du la jariñ dara ba tey kon nag sëriñ bi nee na mi ngi ñuy dénk ci ñett yooyu yi mu tudd te ñett yooyu mooy ya gërëm fa suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy digal nun ñëpp nu maase sax ci muñ ci topp yàlla te lu aw buñ buñ gestu di jëm bul ànd ak kenn ci xam lu kudut koo xamante ni xarit bu matale wëllëre la ci ñett yooyu léeg-léeg gis nga léeg-léeg kat nga am xarit boo xamante ni boo nekkee ci lu baax mu génn la ca man ma ne la ba génn gis nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na koo xamante ni loolu moo kon ni yaa waylataa laytani lam ataxis fulaanan xalila laqad adallani an dhikri ba'da is jaa'ani diw de yàllante woon du ma ko xam ba ma xamee nit ku baax ku ma teg ci yoonu dëgg teg ma ci yoonu njub teg ma ci siraatal mustaqima moo dox sama digganteeg moom loolee kooka day mënutub xarit te mënutut ab àndandoo te képp kuy wutub àndandoo wala ngay wutub xarit na nga teggi kooka kon maa ngi dollee dénk sama bopp tey dénk mbooloo mi koo xamante ni yaa ngi ci biir réew mi wala nga nekk ci bitim réew nekkal ci dëgg nekkal ci njub bu ca bëgg wéttal bu ci ragal a wéet nañu wéttal yàlla te doon takk ndeeru Serigne Touba Serigne Touba li bëgg ci ñun ñëpp. mooy ñu nekk ci ak njub farlu ci ak ragal yàlla fonk koy juri te warmaal leen ngir yàlla képp ku tolloog yow nga def ko ni sa bopp li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko julit ñépp fépp fu fi waaye nekk la ma lay digal te di ci jéem la ma man wéttalikool yàlla yàlla dong bu moomat wéttal keneen ku dul yàlla boo ko bis da ngeen xëy ngeen ngeen ngeen teqalikoo ndax kat ci teqalikoo rek lañ jëm dajab li muy yaatu yaatu li muy rëy rëy rëy par kenn kenn lañ fiy jógee kenn ku ci nekk fañ la denc say jëf nga fay fekk sunu sang ba kat wax jooju mu daan nett ci sëriñ Touba ñaari biir am muy sa biir bopp ak sa biir bàmmeel sa biir bopp bi loo ci nanyi yàlla mën na la ko ca defal sa biir bàmmeel loo ci defut doo ko ca fekk nañu jàmm nañu jéggul sunu borom nañu koy tuubal nañu soppante nañu wóolante nañu lu rafet nañuy waxlante lu rafet nañuy jëflante lu rafet te xam ne adduna jeex na ba bi lépp ci nett li képp li mujj boo nekkee ci mbir isaa kunta fii amrin fakun fiihi muhsinaa fa hamma xalilin an tamaadin wa taarika mbir moo nekk rafetal ko ndax ci diggante bu gàtt mbir moo meekat da ko fa bàyyi mbaa mbir ma bala fa adduna mboolem lañ fi am dénkaane rekk la fi mu ne mboolem nun ñii fi teew ñépp kenn ku ci ne nanga xam ni loo fi amee bu dee daraja la bu dee judd la bu dee taar la bu dee xam-xam la am na ku la ku ku la woon fop te tey mi ngi ci biir suuf ñàkk na ko lu mu ca defutoon ci yàlla loolu na ko ca mënatee ak mukk kon nanu xam ni dund gi lu gàtt la te suñu ëllëg ki la yéwé na te ëllëg yi mu wut fenn ma nañu xam ni li lu adduna jaram ba kenn ku nekk ci ñun foofu jàpp ni war na faa mën a amee adduna ñii ngi dugg ci géej gi ba di ca des ñii ngi def daj lu ne di dox ci tàng wi lu ne ñu di ko def fu ne ñu di fa dugg ngir lan ngir dolli aduna te kenn ci nun du xëy ba dolli ko ci yàlla jaral ko lenn li loolee dara jëru ko ni ñuy dolli ko ci aduna ni ñu bëgg a dolleen ci aduna lu ko raw fopp lañ war a bëgg ndolleen ci yàlla ndax yàlla mooy aji des ci ba faw te du fi jóg mukk te kenn ku nekk fi mu ëllëg da nga dajal moom kon nañuy xëy di bëgg wut ak dolleeku ci yàlla ndax kat fu ne yaa ngay xëy ni ma ko waxee léegi du adduna waaye xëy masala mu la war a dolleeku ci yàlla yitt ñu ci bëri yittewuñu te loolu day moo ne moo ma te yittewoo de ndax foofu foofee nu jëm day mooy liy des fii nu nekk moom day jeex tàkk te li ñu amee lépp dénkaane la ku fi yàgg tuuti kàttan bi nga am danga koy ñàkk bu sa bët neexee day gën a naqare bu sa tànk neexee day gën a naqare loo doon bëgg bëgg koo bànneexoo bëgg koo jariñoo da nga koy gën a ñàkk rek kon nag daw jubli ci yàlla mi nga xamante ni boo dajee moom mu tera la xamante ni am na fu mu tàmbalee waaye amul mu yem yàlla moomee dong moo mat a wut gannaaw dénkaane boobu nag nga xam ni xëy na yàllaa nu nattoo ëpp ñu fi xam-xam dàpp ñu fee wax gënuñu fee jub gënuñu fee ragal yàlla waaye bëgg lu baax rek ak di jéem ak anam nag lu ci jub ci yàlla la waaye lu ci dëng ci man la di siyaare sang sii fi teew suñu kilifa yabal fi sëriñ abdul xadim doomam muy sëriñ seex moom sëriñ salim nu di ko siyaare di ko ñaanal suñu borom defal ko gudd fan lool bu ànd ak ku wér lool du ma ne sagub yoonu murid la waaye sëriñ seex sagub lislaam bépp la di sëñ bay doo wax léegi ndax man defe naa ne fi ma ko fekkut bëriwut waaye foo ko fekk fu ne ci lislaam rekk la de te noonu moo ko waxee dëgg bu wér la njëkk njëkki sëñ Saliou di fi bi fi sëñ Saliou di nekk ndox moom noonu la doon doxe bi fi sëriñ Saliou jógee noonu la doon doxe kon sëñ Abdou jotee na ko jotee na ko sunu cant bu yónni wutoon kenn noonu mën nañ ko fee teewal ndax kenn lañ ci moom kon noo ngi sant ci taxawaay bi di ci bég lool sunu xolit sedd ci guy yu dayab sedd ndax sëriñ Saliou mu man mënuma cee waxtaan wax naa ko sëriñ bi sëriñ Cheikh bërki dem bi may wax ñoo ko jot di cant ci ndax yëmut ci yónnee waaye ay ndaw lañ njëkk a yónni ca kër gi ci waa kër boppam ñu indi fa teraanga yu mat sëkk boole ca indi ci boole ko ña ña koy togg loolu defe naa ne fii la yéen a mën a yem indi ndawal ak la ca war a ànd lépp boole la ca ak ay toggkat loolu defe naa ne fii la yéen a mën a yem kon sant nañ ko dayab sant ndax loolu lépp mën na ko ca bañ a fekk ndax Serigne Saliou de bi muy dund bari na lu ma daan laaj ci kër gi léeg-léeg mu ne ma ndax nangama nga fa waaye lu ma mas a wax te booba sax xëy na àggu àgguguma ca dafa naan ko Serigne bi lépp nga fa